xam nga maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci waxtaan bi mu war waxtaanee pour askan yëpp xam li xew ndax ku ne xam na ni dañoo amoon convocation assemblée nationale tey suba depuis dix heures la liggéey waroon tàmbali mais démb ci guddi groupe parlementaire yi daje woon nañ di waxtaan te jotuñu woon a juboo ndax dafa am loo xamante ni mooy li am bi nga xam xamante dañuy samp bureau assemblée nationale waa benn boo ko yàq dañoo waxoon ne ñoom ñooy njëkk tànn di tàmbalee un ñoom ñu jël ko leneen li bi yeewi jël ak wàllu ñoom ñu waxoon ne leen bu ñu àggee si commission yi fukki commission la ak ñeent su boobaa yéen da ngeen di jël un ba sept ñoom ñu ne duñ def loolu parce que am na ay commission yoo xamante ne commission stratégique yoo xamante ni bëgguñu waa yeewi jël ko ak wàllu te bu ñu tànnee ñoom ñu jël ba sept yam ca sept yi des commission affaires étrangères ci lay nekk commission défense ci lay nekk. commission contrôle comptable ci lay nekk commission évaluation ci lay nekk yooyu dafa war ñëw ci opposition bi bi nga xamante ni wax nañ si jubawuñu bin ma ko waxee en tant que le vice président groupe parlementaire liberté et démocrate du changement mu wax seeg Omar jox ko ay proposition ni ko fan jëm suba bu ñu xefee liggéey bi dana tardé askan wi dañuy woote rupture waruñu woote assemblée nationale 10 heures ba 19 heures liggéey bi amul léegi xam ngeen ne li nga xamante ne moom ngeen doon appliqué ci bureau président assemblée nationale diggante 1 ba 4 bu ko appliqué woon ñoom ñu jël lu ñu war a jël ba léegi liggéey bi tàmbali na ñu ni ñoo parce que lu toll ni maanaam sécurité duñu ko bàyyi ak opposition bi na waa Yewwi affaire étrangère ni mu toll nga xamante fa nekk ministre du ñu ko bàyyi ak waa Yewwi contrôle bi tamit. duñ ko bàyyee waa opposition bi parce que contrôle bi comptable contrôle ñun waa wàllu ñoo ko war a mooy li nga xam ne mooy groupe liberté démocratique changement bi ñu defee maanaam këlkin bi ci ñun la nekk ak bi nga xam ne mooy quatorzième bi nekkoon évaluation ah bi ma ko defee proposition bi ma woo biram aussi ni ko léegi li nga xam mooy maanaam jàmm am mooy nañu waxtaan yéen ngeen bàyyi leen commission de défense ñoom ñu bàyyi leen affaire étrangère ba pare jox leen beneen commission boo xamante ni ci aménagement territorial la ngeen jiite ko ndax président commission du tànk yow yaay nekk maanaam seefu commission bi wala ngay mën a dogal ko dindi malheureusement bi ma defee proposition yooyu ñoom ñëpp d'accord nañ si proposition ndax la proposition de Cheikh Abdou moo m'a ko wax yónnee na président de la république message ndax dafa voyage si guddi gi jóge woon loolu war dem États-Unis bi mu xëyee soo président de la république confirmeel ko li nga xamante ne mooy proposition bi ma defoon pour que maanaam yeewi am lii wallu am lii li nga xamante ni maanaam mooy euh, waa boo ko Yaakaar jël commission de défense mu am beneen problème boo xamante ni dafa am ndax koo xamante ni yaa doon buur di bunni daa am fukk ak ñett tey nga am juróom-ñaar yor ay kàngam yoo xam ne dañoo yor ay parti nekkoon ay ministre séddale day jafe ndax commission affaires étrangères bi ñu koy tànn ñoom dañ ko bëggoon joxoon ku ñuy wax Cheikh Tidiane Gadio mais malheureusement mujjul dem si ñoom tey Ablaye Balde nga xamante ni tey mi ngi si ñoom bi ñuy laaj défense pour jox ko Ablaye Balde moo tax ñu ko doon laaj malheureusement bi nga xamante ne euh, Yewwi euh, bëgg na jàmm ndax bëgg jàmm moo tax mu dangoo bàyyi ndax bu ko bëggutoon du ko joxe ndax neexul ba neexul mais comme dañ ko defoon kenn ku nekk la nga war a am nga am ko Yewwi xam na ni lii naa am blocage te moom liggéeyal askan moo ko ñor mun leen jël leen bi dikk si Yewwi premier vice président nga xamante ne maanaam mooy kii ñu jël lay commission boobu jox ko Ablaye Balde pour que ñoom ñu mën a kasaaj li nga xam moom la a seen i jafe-jafe xamante ne moo waral maanaam tardement bi yëpp mi ngi jóge si Benno Bokk Yaakaar tey jii may wax a yow la président assemblée nationale bu wàccoon woote woon fii may wax a yow liggéey bi war naa tàmbali mais ñun ban joxee yàgg na avant trois heures pare nañ mais mais ñoom ñu ngi ñu ngi doon séddoo ak di pàccoo kii moo war a dugg fii kii moo war a dugg fii ndax tey jii ñi nga xam ne dañoo nekk ay vice président assemblée nationale kenn moo si dugg mu yaakaar Abdou Mbow moom lañ jox loi parce que loi jàpp na ni commission loi ñun yëpp loi yoo xam ne bëgg nañ ko def tey jii ay réforme yu bees ci loi lañ ko bëgg jaarle moo tax ñu dénk ko commission boobu peut li am solo rek mooy le premier vice président deuxième vice président commission loi deuxième bi daf dikk si yee euh, jiite ko première bi dem ci yeew yi kon jàpp naa ni euh, dañ ko partagé ñoom commission yi par 30 la fu ñu am 15 ñun am nañ fa 15 kon li am solo rek mooy li ma leen waxoon ñu xool li nga xam mooy doxal assemblée ñu di ko dox te respecté heure yi assemblée nationale warul nekk koo xamante ne yaa war a joxe un bon exemple tey ji mënu nangu ma am retard parce que lu mat fukki waxtu ak ñett nga def ko retard travaux yi askan taxaw dañuy xaar loolu c'est honte pour ñi nga xam ñoom ñooy jiite assemblée nationale ne loolu amul euh, a doon xëccoo lu jëm ci wàllu président xam nga loolu ay waxi boja eh, boja la parce que ñiy wax loolu xamuñ si dara ñoom ay langaamit lan tey di ñoo ñu jox ñoom seen commission yi sax nekkuñ seen département jiituwuñ seen i gox daanaka maanaam toppantaan moo tax ñu neexal leen ba jox leen commission yooyu noonu li am solo mooy ñun ba ñu pare yàgg na avant 14 heures ñun par nañ suñu commission ba déposé ko ban jox ñu li nga xam mooy décharge bi ñoom ñoo parewutoon ñoom ñi ngi doog a pare nii fi ñu may wax ak yow président groupe parlementaire benn bokk yaakaar nekkul ci salle bi mi ngi bureau secrétaire général ñuy dugal kon ko loolu ma la woon topp ci doon wax noonu xamu si dara xale bu ndaw la boo xamante ni xamul lu mu doon lu ko ko neexal bu bëggee ñu jox ko muuraak mu dem tëdd nelaw merci waaw xam nga loi bi li mu prévu mooy bu fekkente ne dañuy tànn li jëm ci maanaam membre du bureau assemblée nationale article 9 kenn ku nekk maanaam da ngay jël mocce bi ñi jël sept ñi jël sept muy quatorze. léegi nag li nga xamante noonu la ko war a tërale mooy dañoo sukkandiku woon ci bi nga xamante dañuy tëral bureau assemblée nationale bi bi mu nekkee huit ñi jël un ba quatre yeneen quatre ñu bàyyi ko opposition bi. noonu ñu ko tërle woon ci bureau bi te amutoon problème bureau bi ñuy monté bureau assemblée noonu la ñu ko waroon tërle ci bi ñuy monté commission yi mais li nga xamante ne moo nekk nag. li si am si biir mooy dafa am ñetti commission ba ñeenti commission yoo xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñ ko bàyyi opposition bi ndax benn xaalis bi ñuy war a ceytu Assemblée nationale bëgguñ waa Benno Bokk Yaakaar yore ko pour mën a ceytu xaalis Assemblée nationale bi beneen bi commission délégation bëgguñu opposition bi yor ko commission défense bëgguñu opposition bi yor ko commission affaires étrangères bëgguñu opposition bi yor ko yooyu yëpp ci opposition bi war ñun ñi nga xamante ni waa wàllu muy ko waa muy euh, liberté et démocratie bi Lamine Thiam xamee loolu moom malgré que commission bi si moom la aki woon mais dafa xam ni commission boobu noonu ku ko yore te nekkuloo si euh, majorité bi doo liggéey parce que ñaar fukki nit ñooy ne si commission boobu bu fukki yiw bañee ñëw commission bi du liggéey ñi ko yoroon biñ masaa bind ki nga xam ne mooy secrétaire bi bërëb bi nga xamante moo yore mbirum trésorier bi mooy questeur euh, nanguwuñ ko jox document yi président assemblée nationale bu ñu ko laajee nanguwut a joxe kon jàpp naa ne tey ku bëgg liggéey commission boobu donc comme ñoom commission musta daje ak commission euh, euh, bi nga xam mooy délégation musta def réunion moo tax ñun ñu bàyyi woon commission bi nga xam bi nga xam moo nekkoon comptable ñu jox ñu commission économique boobu la ñu jox ñu jox ko suñu benn collègue Madan Faxa bi nga xam moo nekk Saria loolu mooy li nga xamante ni si gàttal mooy wax ji en tout cas retard bi daal ñu ngi koy jéglu askan wi mais ci Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñoo pareegul fii may wax yow ñuy wax ni président groupe parlementaire mi ngi secrétaire général pour ñu defal seen i dur ak seen i kii ndax pareegul ndax ku daan am fukk ak ñett tey boo amee juróom-ñaar seetlu ko day jafe loolu ma war a kii mbaxana bi lu tax ñu sol ko man ku ne xam na ne surtout Bamba la Serigne Touba ñëpp la jaboote ndax dafa am suñu benn collègue député en tant que institution koo xamante ne nii dafa ñëwoon bi passé ko am benn waay boo xamante dafa bokkoon ci yéen nga xam ne day jàppale Macky Sall loolu laa mën a jàpp di wax wax ju ñaaw nga xam moom la dëkkee di santa askan wi kooku moo taxaw ne kooku dafa nekk koo xam maanaam rebelle la robel yow en tant que député nga tuumaal ko nag ab rebelle yow nit ñun ñi ay député la comme moom ñu wan ko ne fekkente ne benn rebelle la Cheikh Abdou Bara doon rebelle la keneen rebelle la kon téeméer rebelle mi ngi si biir Assemblée nationale moo tax ma sol ko pour solidarité li nga xamante ne maanaam mooy suñu collègue député boobu pour wax askan yëpp ni ko nañu bàyyi affaire maanaam xeet tey wax si xam-xam wax si dëgg te bañ a farfarloo ndax réew mi loolu moo ko yor loolu moo waral tey mbax ne gis yëpp te incha allah daan continuer di ko indi te xam ne comme la ma leen ko waxee woon ñun amaguñ président assemblée nationale ki fi nekk nii danga ko fee teg fa force loolu moo tax dañu war a doon ko def ñu dañu bàyyi ko askan bi.